dëgg. mais comme lan. mais euh, l' exemple de Karim est là. waaw mais parce que Karim Pape Mamadou Seck rey nañ ko rey ñu ko. Euh, imam imam imam imam Ndao dañ ko euh, état du Sénégal ñoo ko rey état du ñëpp ñëpp xam nañ ne état du Sénégal reyu ko. mais loolu loolu mooy seen wax. non ñëpp xam nañ léegi barke barke démb Clédor. am na am na am na lu wax si clinique internationale de Dakar. koo xamante ne musul wax musul dugg si ay affaire politique. lem ci wax da nga ko wér. si ay affaire politique. professeur Kassé génn. lem di démentir. non kenn démentir. xam nga il faut arrêter. d'accord kenn est-ce que yoo xamante ne. léegi Clédor Sène wax dara du ko li mu wax ci clinique internationale dara du ko est-ce que est-ce euh, euh, que man mën nañu jàpp quelque part que ni xëy na li mu vivre prison moom euh, Imam Ndaw topp na ko ba génn bakkanam ba ba yóbbu bakkanam est-ce que mën nañu jàpp loolu. xam nga mhm. kii Moustapha. waaye. moi je suis de mhm. man dañ ma yar li ma la waxoon si njëlbeen kenn mënul fexe ba ma wax loo xamante lu day ni tarfatal ay ni luy compromettre waxu imaam imaam Ali Ndaw loolu duma ko def sama éducation mayu ma ko. donc li mu wax sama diine ma ko. Hmm. donc man foofu laa ci mën a yem. mais ñii nga xamante ne dañu nekk di manipuler. Hmm. non du manipulation laa wax ne il faut qu'il arrête. non non du manipulation. les gens ont dit que Alioune Alioune euh, Alioune Ndaw a dit. Mame Birame allez-y. xam nga euh, monsieur Diouf dafa wax sànq di wax ci Sayer kebe ne ku bind ne dañu war a attentat fenn. Mhm. dañ laa war a jàpp. Mhm. du yaa ko dañ la war a woolu. dañ la war a woo. waaw. Moustapha yaa ngi fàttaliku waa ji defoon vidéo bi. waaw ca Touba kooku deful postu de kooku deful postu de. vidéo la dem ne nañ taal nañ taal Walfadjri. nañ taal Walfadjri pourtant gis naa ko dem mu defaat beneen vidéo di la attaqué. bu ma ko gisee dama naan kon dama bu ma ko gisee. non Benno Bokk Yaakaar boo ci bokkee la neex def. non ah ku la ne Benno la bokk. non Sir ah, il fait pas il fait pas des jeunes de la paire bokk Benno Bokk Yaakaar pas de la paire Benno Bokk Yaakaar daal ku ci bokkul la neex def y a deux Sénégal nga xam ne dañoo ànd ak ko sauvé mu may attaqué Walf Walf est ma ko gisee bi ma wax ci vidéo bi hmm. di waxaat ma ne kii kon mu ngi en ba léegi parce que kenn woowu te pourtant dafa wax ne dañuy attentat Walfadjri maanaam Fatma waaw c'est le mot qu'il a ñëpp attentat kooku loolu la wax te ba léegi il en liberté. kee da koo bind kii wax ko. waaw ah, nañ ko jàpp. ci vidéo mais kenn du ko jàpp. kenn du ko jàpp. tant que mi nga ànd ak Macky Sall kenn du ko jàpp. il dirige un comité de la de ah, la paix xaw ma décision de la paix tant que mi nga ànd ak Benno Bokk Yaakaar kenn du ko jàpp. Cogère la nekk Cogère Cogère voilà Cogère. kenn du ko jàpp kenn du ko jàpp. Cogère ah Cogère ca Touba. non non si kenn du ko jàpp si. il s'appelle Talla Sylla. si Talla Sylla li ñuy wax xam nañ ko. lu leer la kenn du ko jàpp ma ne. si il fait partie de la Cogère de Touba. Ah, allez-y ma ne waaw mooy Benno Bokk Yaakaar la bokk. xam nga Moustapha. Mm-hmm. soo yëgul. mais mais yow yow nangu nga ne kooku dañ ko war a jàpp. nga ne. kooku noonu. kan. le gars le gars Talla Sylla Talla Sylla waaw. Talla Sylla boo dañoo war a attentat wal fajiri. waaw. man nga may laaj ndax dañ ko war a jàpp. kon nangu yéen a ma rey. nangu nga ne kon kooku ma attentat kon nangu nga ne dañ ko war a jàpp. non xam nga man li ma wax yow da nga ne CRKB def na bind na est-ce que sa mbokk député mi waxoon tamit dañuy génne suñu jaase rayaate ñooñu kooku aussi na waroon nañu ko jàpp ah mais benn la. may leen ma gërëm maa gërëm ci loolu. xam nga Moustapha euh, dossier euh, li ñuy waxtaanee nii. soo yëgul ne jàpp nañ Cheikh Oumar Diagne yëgoo ne jàpp nañ Abdou Karim. nga dégg ñu ne affaire imaam Ndaw jàpp nañ ci ay nit ndax diffusion de fausse nouvelle. sa xel du dem si ñaar ñooñu. ñi nga xam nga ñoom sax ñu ngi laam-laamee la laam-laamee ba léegi ñoo wax lii ñoo wax lële mhm. mais Moustapha am na ñuy wax ne Imam Ndaw këram dañ fa fekk ay milliers d'euros voilà ay journaux am na ñuy wax ne kër Imam Ndaw dañ fa fekk téléphone satellitaire Imam Ndaw bu muy dem kaso li mu yor nee na matul vingt huit mille ñu ne huit millions huit mille euros lañ ko fekk këram te mu est-ce que diffusion de fausses nouvelles dina weesu loolu. non non ça arrange le pouvoir tant que ça les. kat kat moo ko la presse. est-ce que diffusion de fausses nouvelles dina weesu loolu. est-ce que nu mu tuddati yàq der dina weesu loolu. donc bu nekkee ne dafa am ñoo xamante ni dañ leen waroon jàpp ci cadre. <laughs> Euh, affaire imam Ndaw ña ko vilipande sosal ko fenal ko. ci askan wi ba dugal seen bopp naan Sénégal kon am na terroriste wala amu fi. ñi def loolu ñoom ñoo def division de fausses nouvelles. bu yàggul dara la fi euh, kenn ku may wooye bëy bu musóoru bokk APR def fi benn vidéo wax fi ba wax ne Walfadjri fii dañuy liggéeyante sunu patron bi sax dañ koo liggéey ba moo tax mu ponkalee noonu <laughs> moo ko wax dañ ci teg une semaine dañ ci teg une semaine le président Macky Sall recevoir ko ñu ne moo nekk vingt-neuvième position ci liste Benno Bokk Yaakaar te pourtant la mu def diffusion de fausses nouvelles mais que mu ngi far si ñoom. yaa ngi souci mais ñun ñi moom ku ci juum ba wax dara soit dañuy def vidéo comme nu ñu la def yàq la lu mel ni xeme wala ñu convoqué la. saaga la ba nga tooy. walla ñu convoqué la. dara du lañ ci fekk ba léegi maam Biram waxoon ne waxoon na ñële lañu ñu. def man li ma wax division de force. li ma wax wala def def nañ ko. gis nga li ma wax li ma wax mooy. mais ñun bu ñu defee ñële def loolu rek nga wax. mais ñële dañ leen jàpp mais ñëpp lañ a jàpp. mais waaw léegi lu tax lu leen jàpp. lu tax duñ jàpp waat waaw lu tax yéen du leen jàpp. ay kàcc la dama ne. ay fen kenn leen jàpp lu tax yéen kenn du leen jàpp. dama ne. Ah, ah, kon yow kenn du la jàpp. du ma fenn. wax ñu ñu la yow dama ne lu tax seen gars yi duñ leen jàpp. ah xaw ma. ah xam nga ko kay. ah déedéet <laughs> dama de fausse nouvelle man gisuma ko. ah bon liñ fi wax sànq du diffusion de fausse nouvelle. mais ñan lay wax ñan. mais jox lay kii tudd laay tur kay. mais jox nga euh, xam xam nga euh, Imam Ndaw ñu bëri ñu ngi naan mag la woon mais 62 la hmm. maanaam bu nekkoon mu ngi ci euh, administration retraité gul. ay morom Macky Sall la ah. màgget mu fi Macky Sall fal teg ko ci boppu conseil constitutionnel. 70 ans la am. moo magee imaam ndaw huit ans imaam ndaw ñi ko xam ba ñu demee Kaolack mm-hmm. biñ koy rob ay ndongaam ñoow ne ma mm-hmm. imaam bu daan dugg si jàkka ji hmm? buñ ko déggul sax yëg ne mu ngi ñëw parce que saa yu dëggee tànkam nga xam ne jàkka ji di riir kooku borom kàttan la mm-hmm. kooku lañu jàpp ñu ne yóbbu nañ ko pendant 33 mois mu génn ñu bëri xàmmeetuñu ko soppeeku complètement ñu bëri xàmmeetuñu ko. Hmm. pourquoi moom wax na ko parce que ki ëpp kàttan ci àdduna bi sax soo ko dugalee ci condition yu mel noonu parce que toog na ba ne Saint-Louis bi nga fi tudd sànq dugal nañ ko ci benn cellule boo xamante nekk na fa ay fan te du xàmmee guddi ak bëccëg. du xàmmee guddi ak bëccëg donc ku mel noonu nga teg ko ci situation bu mel noonu te amuloo benn preuve teguloo ko ci lenn lenn lenn mais. yàpp oustaz euh, imam la nga bàyyi ba mu tëdd nga ne da koy évacuer loolu yàpp mënu koo weesu parce que bu doon yow li ngay wax dëggu na ci yow ba mu génnee kaso ne def nañ ma lii def nañu ma leel nga waroon a xam ne kii kat ànd na ak coono soo koy dimbale nga dimbali ko mais doo bàyyi ba coono boobu puus ko ba mu tëdd nga ne danga koy évacuer te évacuer mooy dëggal ne Sénégal dara amu fi lu tax ñu koy évacuer est-ce que am na hôpital bu ko war a mën a faj fii gis nga imaam bu fu mu tëddoon maa ngi lay dégg nga koy wax te ma kon ma jàpp ne loolu mooy dégg imaam bu ñëwoon ba ci noppam ne ko sa feebar bi kat dañ la bëgg a yóbbu Allemagne wala France fajee la fa imaam du ko nangu danaa leen tabax leen ay opito Sénégal fii yoo xamante ne nii feebar boo munti am dinañ la fi faj. c'est ça imaam c'est ça imaam Ndao. c'est imaam Ndao. parce que tey bu ñu toogee ñu ne euh, euh, président nee na dafa gis benn stade bu ñu tabax fële euh, ca tugal tugal stade boobu kat. Euh, nu mu euh, euh, très bien européens yi mooy seen high class. mais Sénégal mérité na ko. mérité na loolu Sénégal mm-hmm. mérité loolu. bu ñu mm-hmm. bu ñu waree dem stade am stade boo xamante ne nii. Mm-hmm. dafa méngoog bu tubaab yi. di footballé. waaw compétition. ñu dañoo war a am également hôpital boo. xamante ni dafa war a méngoog <laughs> hôpital boo xamante ne nii. high class la. du mais kenn du évacuer kenn agrément agrément bi Aliou Badara may ko mu daaneel waaye s'il vous plaît. dama koy bëgg a wax ne. loolu amu fi. parce que ah, Sénégal Sénégal ci période Covid bi bi ñu fi tëjee frontières yi nga xam ne kenn mënul génn gis nañ. ñu bëri ñoo xamante ne ay borom yi barke lañ ci réew mi la faatoo parce que amuñu fenn fu ñu leen évacuer bu dee ab hôpital boo xamante ni mën na jël en charge yenn pathologie amoon na fi nit ñi dinañu ko xam léegi nag euh, par rapport ak euh, euh, Cheikh Oumar Diagne mhm. ak euh, nu mu dooti Abdou Karim mhm. man pour man dañ leen a jaayati doole rek yóbbu leen kaso tout simplement parce que li nga xamante ni wax nañ ko man wax naa ko